أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله وما توفيقه إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وخدمه ومن والاه asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi nga xam ne ñoo safa di topp ak di bàyyi xel seen seen bii di Cheikh Sylla Talib na ngi leen di leen ziare ñu fas yéenee ñëw tey nag incha allah indi tomb boo xam ne bu am am solo lay doon jàpp nañ ne ci tomb yi nga xamee ne ñu ngi koy faral di indi saa su nekk naa lu jiitu loolu it ñu xamal ñi nga xamee ne ñoo ngi bàyyi xel ci Cheikh Sida Talib Sisata mu mel ne ay seetlu gis nañ ne tur bi dafa xaw a gudd te day mel ne lu it lu xaw a personnel tax na loolu ñu taxaw ci ngir soppi ko incha allahu taala fas yéene koo tuddee turu Talib euh, incha allah Talib TV euh, bu sobee yàlla. Euh, ngir mu mën a nekk lu luy wéy te it lu népp nekk lu népp ñëpp mën a bokk incha allah tey nag dañuy waxtaanee mbokk yi tey ci ñaari tomb ñaari tomb yoo xam ne incha allah benn bu ci nekk rek dañ ci jaar jàll deesu ci deesu ci guddal bi ci njëkk mooy li ñuy wax laabirante ci diggante ay jullit ndax euh, laabirante day lu am am solo ñaareel ba mooy euh, digle njekk ak tere ab safaan Ah, di digal loo xam ne alxuraan moo ko digle loolu nag am ñu ko war a def bu njëkk bi muy laabirante mbokk yi kenn ku nekk mën na koo defal sa moroom te toll nañ nag ci jamono joo xam ne laabirante lu jaadu la yàlla bi mu bindee julli ñi yëpp da leen def ñu ay mbokk te mbokk ku nekk xam na ne la war diggante ak moroom mbokk mooy mu ko di ko dimbale di ko laabire innamal mu'minuuna ixwa kon loolu dafa nekk lu war nooxin sax ba muy wax wax ak aw nitam dañ leen Euh, wa ansaxu lakum man de dama leen di dama leen di laabiire ni noonu ku mel ni mm, yonte yàlla Huud dafa waxoon wa inni lakum nasihun amin euh, aw wa inni man de kat dama nekk koo xam ne dama leen di laabiire te ku wóor laa euh, kon laabiire di loo xam ne mun la mën la ñàkk nit ki nag danga ko war a laabiire ci fànn gu nekk laabiire ko ci aw yoon wu baax teg ko ca ngir mu góor góorlu ca waaye laabire ko it ci bàyyi ab safaan bàyyi ab safaan ki gën a yaakaare laabire nag mu war koo laabire mooy ki féete mag nga xam ne dañuy wax ne ku la jiitu ci dëkk rek kenn laa xamul yoon nga xam ne yow xam nga pakastal yu bari xam nga ay mbir yu bari ki nga xamee ne dalaa féete ndaw moo xam sa doom la moo xam sa rakk la moo xam sa jarbaat la wala lu mën di doon ceew rek da nga féete ko mag danga ko war di ko laabire ni ko sëriñ bi waxee ne nga bañ a gis dara loo xam ne danga koy dencal ki nga xam ne yaa ko féete ndaw ci ak lay biir lu dul ne danga koo dul ne danga koo wax ci ndax jox daay laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci euh, euh, ku ñu wax abi ruqaya euh, mu wax ne yonent bi sallallahu daa wax ne diine la ak diinu an nasiha diine kat dong la ñu ne ko ah lay biir ngir kan wala ñeel kan من لابر لله ولرسوله ولكتابه ولله ولكتابه ولرسوله ولأئمة ولأئمة المسلمين وعامتهم من قال لابر غير جميع الله لابر غير تير برم تبارك وتعالى لابر غير ينت برم ينت برم برم تبارك وتعالى واي لابر جلني جلني يب كن نيت دي لابر مبكم جلتم فمو فمو مندي فمو مندي نك Euh, mu nekk lu lu loo xam ne mu nekk loo xam ne nañ ne lu war la ndax nit ku boo gisee dara loo xam ne danga ko waroon a labiri ci lu mu waroon a tàbbi ci lu noonu nga bàyyi ko bañ tàbbi ca danga ci am responsabilité dañ cay eh, danga ci am responsabilité ne nga xamee ne suñ luwaay addina yi li ñuy wax luwaay tubaab bi boo fekkoon nit tey mu waaj a faatu nga ñàkk koo assister seetaan ko ba mu faatu buñ dikkee xam loolu dañ lay dañ lay boole ci tuuma ja nit ki noonu labiri noonu la loolu la war a mel te bokk na ci léebiré yow li nga bëgg sa bopp da nga koy yéene sa moromu jullit yéene gi nga koy yéene nag dana tax lépp loo gis nekk ci lu baax rek euh, nga nga digal ko ko mu dox ca waaye lépp loo gis ci am safaan nga aaye ko loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne laa yuminu ahadukum xataa yuhibba li aqiihi maa yuhibbu li nafsihi kenn ci yéen du mën la gëm lu dul ne lim bëggal boppam na daa ba da ko bëggal moroomu moroomu jullitam kon mbokk yi nañuy laabirante ci suñu biir suñu kéemtalaayal kàttan suñu tomb bi topp muy digle njekk tere ab safan dig digle jek tere ab safan loolu da fay nek lo xamne mën la ñak yàlla taggé ci alquran da naka man nga ne mom la fees del del del del rawat na xeetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam borom dafa wax ne wal takum minkum ummatun yad'una ila alxayri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna anil munkari ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna anil anil munkari dal di wax ne wa ulaika humul muflihuna ne yéen kat nga nek ci yéen aw nit wo xamene ne dañuy woote jëme ci aw yiw di digle lu bax di tere ab safaan nee na ñooñu buñ ko de buñ ko défé ñoñu moy ñi nga xamé ne ñooñi ñi nga xamé ne ñoy taxe waxati ci beneen bëri ni kuntum khayra ummatin ukhrijal linasi ta'muruuna bil ma'ruf wa tanahuna anil anil munkar nek leen wala nek ngeen gën ci xeet wo xamé ne gën nañ leen ci nit ñuy digle aw aw ak njekk waye di te di tere di tere ab safaan di tere di tere ab safaan banu israila borom bi tabaaraku taala dañ leen rëbb ña ca weddi woon banu Israil ndax ya lebal ñom ay ay ay yonent ci lamiñ Seydina Daoud ak lamiñ Seydina Isa euh lool nak lu ko waral moy moy guñ daan moy ak ñaka a laabiire ñaka a ñàkk a aw ñaawteef waye ñaka a digle aw yu lool la alxuraan di wax ayna alladhina kafaru min bani israil ala lisan daoud وعيسى ابن مريم ذلك zalika عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه Euh, labisa maa kaanu na labisa maa kaanu na nekkoon nañ ñoo xam ne daal dawuñu tere mukk aw ñaawteef dawuñu tere mukk aw ñaawteef euh, kon nit ki lu aay yooyu ñu wax da nga ciy dégg que ne yow boo gisee loo xamee ne lu ñaaw la danga ko war a dindi danga ko war a dindi dindi gi nag ci ñetti anam la mën a nekkee yonent bi sallallahu alayhi wa wax nga man ko ci sa kàttanu bopp xam ne boo ko jugee jëf mu nañ wala nga man koo dindi ci saw làmmiñ amoo kàttan nga waaye mën koo dindi ci saw làmmiñ boo waxee mu deñ waaye wala amoo ñaar yooyu yëpp uh, nga xam ne fas sa xol rek fi sës nga daal di koy fas ci sa ci sa xol te borom tabaaraka taala dala koy dala koy fay li li li li li nga xamee ne kay ci lay dindi amee bàkkaar mu mën dindi aw gis aw ñaawtif mën koo dindi ci loxoom defu ko bàyyi ko muy law mu mën ko dindi ci aw làmmiñam defu ko bàyyi ko muy law ba pare fasu ko ci mën naa am sax mu neexlu ko wala aw ñaawteef am julli ñëpp taxaw di ko seetaan ñi war a digle ñëpp toog di ko seetaan ba mu gën a law su boobaa bu ci bàkkaar juddoo ñëppay daal di maasandoo maasandoo am bàkkaar kon loolu yonent bi sallallahu alayhi man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa fa bi qalbihi wa dhalika adaful wax moom yonent bi sallallahu wax na ne yàlla borom tabaaraka wa taala amul benn yonente boo xamee ne yabal na ko ci yonente yi jiitu woon ci xeet yi nga xamee ne ñoo jiitu woon lu dul ne def na ci ñoom lu ñuy wax ay surga ay xawaar xawaari na ak ay àndandoo yoo xam ne dañuy jël dañuy téye ci seen sunna di ca roy di ca roy ñoom yonent yooyu bu fa jigéen dañuy bàyyi aw nit seeni ginnaaw aw nit nit ñooñu nag dañuy nekk ñoo xamee ne euh, dawuñ topp la seen i jiit seen kilifa seen yonent doon def doon ko def waaye dañuy jaar ci safaan bi xalafa min baadihim xalfun adaa'u salaata wa tabahu sawaat fa sawfa yalqawna xayyan ñu mel noonu lay doon nee na nag moom it saa sa daal ne nit nga xam ne dañ leen bàyyi ginnaaw déeruñ fa seen yoonu kilifa yi jaaroon ñoom ñu ñëw topp ci waneen yoon ñooñu ne ñoom ñoom de ku jihaat ak ñoom ci loxoom kooku ku gëm yàlla la ku jihaat ak ñoom ci ci aw laabe ñoom kooku